jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii Colobane seet ki nga xamante ni nii mooy Tonnerre 2 muy def open press am wala boo Kogna 2 muy def open press am tey ñu ñëw teew fi guddee nañ nag trop waaye ci moom la ndax open press su vingt une heures vingt deux heures xanaa di bëgg lu leen neex yéen ñi nga xamante yéen a se ci wasaare làmb waaye nag lépp loo xam te am na fi muy wàllum ambiance di wàllu mbàkk di wàllu euh, wane boppam fi mu toll ci combat bi wane na pare na lépp loo xam te am na fi rek dañ leen ko docteur ma ànd ak ki nga xamante ni mooy kaagu kaagu dañ dox dem ci biir mbokk yi gis ngeen ñoo ngi fii ci open press bi nga xamante ni ni mooy Kogna 2 maa ngi fi taxaw ak Thiatou Nguéweul Thiatou Nguéweul naa waa doom yaay fay naa la ci waa sant yàlla bu wér mais félicitations waa merci beaucoup waay jaajëf mais booba ak léegi ci loone waa ñu ngi si sanu jàmm rek na sanu entraînement di waajaat quoi ne si bëgg combat balaa saison bi tëj incha allah bëgg combat ñan sa diggante kan man armée laa bëgg bërël kan armée point la moo loolu caat noo armée daa waroon a bëree dugub na am nu mu daa sonné am ay saaru rumeur yu jóg taa ma man si keppaaru dugub laa ne woon dugub moo ma tette ba keroog muy doon bër dugub moo ma bëgguma nga bëree kenn ko dul armée bëgg ma jënd vingt bloc wala quarante bloc. mais armée am na combat. waaw ñaata avance moo xew si lamb ji léegi lamb ji amatul limite. daal moo ne sa xel fi mu doon moo nekk sama xel waaw. mais tey lan ma waroon sa teewaay ci fii. waaw li waral sama teewaay mooy Koña sama xarit la. magam Abdou Faye sama mag la sama lépp la xam nga man moom ñu doon ay nit yoo xamante ni maa Koña maanaam li nga xamalante dafa bari maa moom amuñu ndugoo man lu ma dul wax ak kenn dama koy wax ak Koña mais Ronaldinho maa ngi dégg démb nag face à face bi moo am wax yi muy wax moom nit ku baax la mais am chef amuñu benn problème bu ndajee dañuy nuyoo mais aw ma moom benn relation yorul sama numéro yor ma numéro mais man Koña laa faral ndax moom laa am relation dëgg la nag lépp la may mais nit ku nekk ak ki la yàlla cërale lan la wax lan la wax ci signature waaw muy wax Konia ay da nga bëgg jaxase sanu ay wala Konia jaxase wu ma kenn sama nit la sama doomu nday la dama koy ñaanal mu daan Ronaldinho jël bu gaaw si barke alxuraan mais du yomb de Ronaldinho daanaan la de non Konia xale la da koy daan incha allah xool leneen Konia yabuñu sax yabuñu sax Ronaldinho li ma koy taxaw rek bu taxaw dëggal bu taxawee koñ dina ko tëcc tëcc yu métti allah waaw baax na kon ba ci waaw ok jaajëf. mbokk yi maa ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Tonnerre 2 Tonnerre 2 nuyu naa la. maa lay fay. ci loo ne. sant Serigne Touba. mais yéen a ngi def ambiance suñu waaw waaw instant bi loolu ñu war waaw. mais gisee noo gisee sa tey. alhamdulilah. alhamdulilah. Ah. waaw. su doon sa xel dal sama xel dal na ci moom. waaw. mais mu jëm làmb boo xam ne làmb ju neex la. làmb ju métti na diggante moom moom Ronaldo Ronaldo ku ne xam ne ne ndaanaan la lan ngay wax ci boobu combat. non combat Ronaldo ñëw koo ñaar de méttiwul. méttiwul ci ñun. méttiwul ci yéen. non non pare nañ ci côté yëpp. ñaan yàlla miy maye ndam rek maye ndam. est-ce xam nga Ronaldo. xam nañ ko bu baax. dafa nekkoon euh, ndaw loo xamante ne si dafa nekk ci yoon. comprendre nga koo ñaa gën nekk ndaw nag. moom moo am am na ci lu mu jógee tamit. non am na lu ci jógee mais Ronaldo Ronaldinho dafa am retard koo ñaar dox ba dab ko xam nga mais bu doon yoonam dafa continuer euh, xëj na du demee nii yàlla nag mooy dogal dogal loolu ci moom ba koo ñaar dab ko tey ñu war a bëre mais dina xam ne nag mi ngi bëri xale boo xamante ne si xale bu pare la ndax dafa de ay erreur ci yoo xamante ne si bàyyi na ci xel yaakaar naa dootu ko defaat war nañ ko ci côté yëpp daal waaw. mais eh, yow foo toll. non man gars may woo sama combat ak euh, c'est super jamono taxawoon na. yaa ngi dégg mais dañoo mujj bàyyi combat boobu. waaw. non naa ci moom la. ma bàyyi ko instant bii nag mi ngi dox sama diggante ak Dab Daan waaw. sa combat Dab Daan. waaw Dab Daan ñàkk laay bañ rek moo tax. waaw fan ngeen toll ci fusionné bi fan ngeen ci toll. Fass Ndakaaru fan ngeen ci toll. non Fass Ndakaaru ñun léegi nekkatuñu doxuñu ci ay écurie Fass écurie Colobane mbooloo moom lañ nekk. Colobane Mbolo. Colobane Mbolo. ah loolu lu bees la. lu bees la te ñu bëri nañ ci ay combat yu bëree bëree bëri am nañ ci ay ndam yaa may dégg ñun topp ñu kenn topp ñu kenn de yaa may dégg d'accord góor gi bi muy dem dafa lankoon ne du ñu jox récépissé bi bu ñu ko joxoon écurie Dakar day continuer mais comme moom bi dem na yóbbaale kii bi dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal parce que def na ci ñun lu bëri loo xamante ni ñun ñu ko fay quoi. mais est ce que am na ay mbër yu jógee fii dem Fass moment bi ñaari mbër ak Sibel ñoo ko topp damay wax seen tur Ndofène ak Sibel ñoo ànd ak paa bi mais ñun ñu ngi des Ikine Colobane mbooloo mu toll nag plus de soixante nangam personnes ñaari mbër ñoo ko topp waaw. mais mais mais mais lan nga wax ci combat boo xamante ni fii ak 4 jours 5 jours moo ci des lan ngay wax sa poulain tey. sama poulet waaw pare baare nañ ko defal nañ ko réglage yi mu war a def te am nañ ci moom yaakaar yaakaar naa ne erreur yi nga xamante ne si moom la defoon ci combat yi passé bu ko defaat parce que combat bi fi mu ko mën a yóbbu xam na ko fi mu ko mën a delloosi it xam na ko yaakaar naa benn erreur du ko defaat amuñu ci yaakaar ci loolu yaakaar nañ ne fi mu toll nii daal suñu xel dal na ci moom te koy ñaanal yàlla mi nga xam moom moo am ndam mu may ko ndam. waaw dañ koy ñaanal yoonam mu nekk yoon bu rafet yoonu champion bu leer waaw ndax Konia macha allah xale bu am jom la mën na li muy def yaa ngi rek kon li ci des mooy ñaanal ko yàlla waaw ñaanal ko yàlla rek yàlla may ko ndam quoi. maa ngi baax ba nga jaar ñi sa boobu ñaaw bi. ñu ñaanal yàlla may ko ndam quoi. waaw di nuyu supporter yëpp nag di leen wax ne bu jour combat ba bëgg nañu ñëpp teew. comprendre nga teel a ñëw ñu teel a dem bëre daan ñib si waaw. kontaan naa ci waaw di nuyu waa Colobane bi yëpp nag di jéeglu ci dérangement bi suñu dëkkandoo yi nga xam ñoom lañ dëkkal wax dëgg si yàlla dérangé nañ leen mais ñu ngi jéeglu ñëpp di xam ne yàlla moo ñu natoo làmb ñu nekk ci seen biir comprendre nga ñu ngi jéeglu ñëpp daal di nuyu président euh, Madiba Ndiaye Madiba Ndiaye nag ma gënal loolu nag ma ko gënal Madiba Ndiaye ñu ngi koy sant di ko gërëm. jàpp na ci combat bi El Hadj Sarr mi taxaw Saliou jàpp nañ ci combat bi mënuñoo sat ñëpp nag comprendre nga mënuñoo sat ñëpp mais ñu ngi sat Colobane képp képp kuy jàppale Konia 2 Tonnerre 2 rek ñu ngi lay bégee di la ñaanal Madiba Ndiaye nag ñu ngi koy sat amuñu fee mention spéciale moom Thierno Ndiaye ñu ngi koy sat dose bay faal bi yëntit na waaw yow laa ko jël laa ko jël yow laa ko jël

ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii ci Colobane seet fi ki nga xamante ni nii mooy Tonnerre Kogna moo bëre la set ak ki nga xamante ni mooy Ronaldo xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi nuyu nañ la asubilaa bismillah ina wan yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ginnaaw bi sant yàlla juri ci bi sant suñu ñaari waajur waa ñoo ngi nuyu ñu fi tooy ñëpp di jégluwaat waa koñ bi bu baax a a baax di jégluwaat waa koñ bi di parce que xam nga rek lii dafa metti quoi ñu ngi war a nelaw xam nga heure bii xam nga ñu ne ci mais ñoo ngi leen di jéglu bu baax di baalu ak mag ñi góor ñi jigéen ñëpp ñoo ngi leen di waa di nuyu waa Colobane gëpp bi nga xam ne tey fi lañu yeewoo xam nga di nuyu waa Bawol tund Bawol gëpp maa leen di nuyu di leen ziar di leen woo ci sama komba rawatina waa Touba Toul waa Newraan sama waa dëkk waa Sambaay sama dëkku cosaan Newraan waa Touba Toul waa Kerlaman waa Caacaw waa Ndondol waa Sinjaan waa Ngas Xurwa kër Waali kër Joomaay waa Njon Seeseen Parba maa ngi woo ñëpp sama combat waa Njoobel Payen Njoobel Ngayen Daaro Fay Mbangur waa Cawen Newraan gu ndaw waa Réew Maawo Reefan maa ngi woo Njéefun yëpp Njéefun Kër Njaw Njéefun Paal Njéefun Xalaleen Njéefun Ngomen Njéefun Cajaar maa ngi woo juróom-ñaari Njéefun yëpp juróom-ñaari kila yi di nuyu waat tund tubaatul bawol di nuyu ñëpp góor ak jigéen ndaw waaw di nuyu waa Njaan waa Réew Maawo bawol maa ngi nuyu ñëpp waa xam nga di nuyu waa Zowal. waaw maa leen di nuyu bu baax di leen woo ci combat bi bu baax a baax waa Diofior. gannaaw gannaaw gannaaw ba nga wootee est ce que xam nga Ronaldo. Ronaldinho waaw Ronaldinho. maa ngi woo waa Guy di leen nuyu bu baax di nuyu Khadim Diop fi mu jógee maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa Guy baax. Ronaldinho ci kattan suñu borom saa bi wax amatu fi moo ci des. non mais est ce que xam nga Ronaldinho. non xam naa ko xam naa ko xamul làmb nii rek. waaw xam naa xam xamul làmb nii parce que nit moom xamul làmb nga ko a xam muy bëre nga koy suivre man tam may bëri mu may siifar quoi. ñu gis la dafa am ci loo jógee nga jóge foofu ñëw jël ko te mu nekk ndaanaan. non ñun moom wax dëgg si yàlla amul mbër buy tàkk ngeen boo xam ne toog di sikki sàkk sax ndax buñ am na ñoo xam ne fekk nañ ñu tour ñu mbapan ba du bëri dóor moo gën que doo xam koy am da ngay bëri dóor bu final kii li may wax xam na ci dara yee parce que fekk na ma dindi dem ñibbi te mbapatu bëri dóor la ni ma bëri la mbapat bi commencé ni 21h la ñuy bëree euh, boo boo boo fajar. mais fii fii Ronaldinho lañ wax de waxuñu ay Mbapat Ronaldinho. Mbapatu bëri door dama ne moo gën a métti benn combat dama lay firndeel lool rek benn combat du Thiès ci man kooku one minute ko. dama dégg mu ne dafa am lu ñu doon xaar ci moom ku wax mu ne doole doole la manqué te léegi nee na am na doole looy wax ci loolu. walla loolu laa sawar dama kontaan lool loolu. pare na nag amul lenn lu muy lay incha allah pour bu ma ko dëppee mu ba am le mu nga am du am lenn lu muy wax liggéey ne ba am doole man maa ngi woon Gambie di nuyu waa Gambie bu baax di nuyu Paa Mamadou di nuyu fi mu jógee parce que dafa sonn samay mbir barke alxuraan ko waa bi mu taxawee dama trois séances la ma doon teg di ma yee fajar guddi bëccëg suba ak ngoon di ma teg lu métti barke alxuraan waa Gambie waa pencum lambi Gambie yaa ñoom ñëpp dañ ma taxaw barke Sëñ Fallu aw ma seen fay Ronaldinho laa la wax li may euh, li ma koy wax mooy liñ naan saj bu raw jarta yàq nelaw combat bi di ko doon wiiri wiiri cinq promoteurs woo nañ ko ne ko Kogna dafa dem ba sës fi moo tax mu jël ma kon yàgg nañ koo dox yàgg nañ koo dox cinq promoteurs yi ko wépp dañ ko ne Kogna moo fi nekk mu mu dem boo xam ne ses na mu dem jël combat bi mu jël ko far force te dama ko waxoon ne ko boo bëri tak man doo bëri. mais mais mais dafa ndànk Ronaldinho lan lay daw ci yow. non Ronaldinho man man sawara laa biir gars yi de barke alxuraan li ma lay wax ni sawara laa man ci biir gars yi man kooñaa gars yi xam nañu bu baax man dama bëri tournoi dama toj mbapat dem drapeau chef de l'état andi fi lu nit mos a jël andi ko Dakar. kon ay Ronaldinho yi man moom laala moom du moom ma tax a jóg daa am ku ma war a yootu ku nekk Tëngéej te rabbi ci kattanu suñu borom. tee lijjanti lii ba noppi balaa ngaa lijjanti leneen. non Ronaldinho déggoo li ma nee naa man ak moom du Thiès kooku wan minute ma lijjanti ko Ronaldinho man su ma demee moom man damay tekki sama ngem man bër bu may xalaat ne mënu ma koo daan man koo ñaa ma teel a bay bëri arrêté fii nii barki Sëñ Fallu parce que man leer na ma li ne ci man nekkul ci ñoom man dama fooyee bëri dama tarbiya wu bëri barki alxuraanu karim dama ma gën a mën a bëri yow damay sawar bu may bëri yow. man mais moom soo naataangoo la luur de lese la comme yow. waaw lese man waaye dama ne man balaa maa gën a sawar ñu ne ma koo ñaa jël na ko maa risque sama grand laa la Abdou maa ngi koy nuyu bu baax barke alxuraan day son ci man li may wax bu ñëwee koo ñaa ku doole la am dinaa ma bëri woo dama jëli koo xam ne moom dañ naan nga dee moom loolu moo ko ñu ngi lay nuyu bu nga jóge 8 mars sa digganteeg yàlla dogal li muy dogal nga xam ne victoire moo am ak défaite ak match nul nga jógee foofu am beneen combat boo xamante bi ni mën naa koo tuddee combat capital est-ce que xam nga dëgg-dëggi combat bi li mu laaj kooñ nga ne capital nga am sa diggante ak Ronaldinho nga jóge ci wës spécial ñu yóbbula la grand combat waa Colobane waa Bawol waa Newraan ñëpp topp sa ginnaaw est-ce que xam nga dayoo combat bi. waaw dayoo combat bi xam naa fi ma yóbbu parce que la combat bi sama avenir la ko waa dem wax naa ko signature bi nag combat bi sama bakkan laa ci teg te li ma koy wax na gul daa am na lamb yoo xam ne ñu duñ ko caaxaane parce que fi mu ñu war a yóbbu lii mooy suñu buntu lamb yee fi dañu xamee kooñaa kan mooy kooñaa incha rabbi ci kàttanu suñu su bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko ci kàttanu yàlla est-ce que xam nga tamit dëgg-dëgg Ronaldinho parce que bul umpale ne fi bëri woon ak Jawdin moo fi bëri woon ak Demba Thiaw bëre feeg ñoom anti bëre feeg ndaanaan yu bëree bëri bëre feeg Potignan est-ce que loo bi ngay yóotu pour daan Ronaldinho moo la fa mën a yóbbu. combat bi xam nga dëgg dëgg dayoo bi dama ciy ñëwaat ba tey ak ndaanaan yi mu bëreel ni mu leen daane kum daan dugal na la top 5. waaw Ronaldinho champion la kenn du ko wérante kenn du na notable tamit suñ gannaaw la ñu may sens. champion la xam nga dañ koy ñaanal yàlla jàmm ak salaam dara bañ ko dal ñun tam dara bañ ñu dal incha ba combat bi xam naa fi mu mën a yóbbu xam fi mu mën a yóbbu moo tax ma jël ko pour bëreeg moom. jee mm-hmm. parce que combat bi dafa am lu ci nekk loo xam ne nii après suma bëreeg moom bu pare après lay conta comprendre. waaw non du ma ko wax léegi après xam nga rek tek rek wax mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla ci kattanam mu may ñu ndam incha allah te gëm nañu ne ci kattan suñu borom parce que liggéey nañ ko incha allah. mais wàccaay li wàccaay li fan nga ci toll ndax combat yi boobaa. xeex ah. mu dem tax non loolu mënul ñàkk man mosuma bëre koo xam ne xeexuma yow dama lay xeex ba nga wari ma def la li ma lay def sama yoon man mosuma ñëw di bëre bëre ndax mën nga gis ma song mbër mu échec mu rëcc wala muy am sax yaw mën nga ko gis yaa ngi suivre samay combat yaa ngi koy suivre te booy Elise ak Ama bu Malika ak Petit Lanfa ak Soq ak ñëpp dëgg la kenn ku ne wen faas laal de ba ma la ba dafa jeex Ronaldinho laa la wax de est ak Ronaldinho benn dëggoo li ma man nee naa la man Soq li ma daj ci parce que bokkuñu man ak moom. yee eh, mag xale la. Ronaldinho di mag de koñ. dëgg waa dëgg li ma la wax Ronaldinho même bu dul mag man moo mak fuuf. tey buñ demoon tey ba jëm jëm ay kat euh, kii ay 40 ans kanam. lu ñuy gën a dem ma koy gën a doole. bokkuñu man xale laa man 96 laa booy bu ndaw laa. sa premier grand combat nan nga fas yéene mobiliser woo ak yaa ak waa nan la tuddati. Colobane Mbolo. waa Colobane Mbolo maa ngi leen di nuyu suñu waa écrit yëpp di nuyu Seydou Fall tamit ak bàcc suñu kot si na ci affaire trop maa leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen parce que ak ndam ginnaaw seen taxawaay ñoom ñëpp waaw. waa Colobane Mbolo bii mooy suñu premier sortie grand grand combat bi dama koy gagné sama bakkan laa teg ci stade bi bés boobu hmm. dama koy rey maa ko Koña <laughs> dafa am lu la dey wala lan la. non du man déggoo man dama gëm sama bopp man xool ma yow xool yaa ngi sama taay. maa ngi lay gis bu baax xam na xale laa bu ndaw lan moo a andi fii. yaa ko xam. ku dem éliminatoire laa la drapeau chef de l'état dem CEDEAO di bëree di di ah. bëree di rey di rey sa bopp beer bi nii. Mhm. man su ma demee booy sikki saka naa man ñi ma champion yi ma daan mhm. Ronaldinho bu ñu waxantee ka moo ma jëkk ci làmb ñi ma daan moom daanu leen. bu ñu xoolee suñu ñu suivre suñu carrière ak ñi ma seetaan tournoi may bëre Ronaldinho man ak moom su ma demee ba am lu may sikki sàkka moom xam nga damay teel a Ronaldinho waxuma la moom de waaye ñi ko su ñi ko ak feneen ak feneen man dama ñaan yàlla bëri ñoom Balla Gaye Sa Thiès ñoom Modou Lo gaa yooyu noonu mais su ma demee bay xalaat Ronaldinho mi heure bi fii nii waaw tëngeej de tënga leen bët waaye bàyyi ba nga génn ci lii papa nuyu naa la waaw asalaamaaleykum gars yi baax di leen ziar bu baax a baax man communicateur traditionnel laa nekk ci làmb ji xam ngeen ma bu baax a baax. xale bi dama am ci moom confiance 100 pour cent du arrière du jéggi saako yi te làmb ji dina gaaw te bu jeexe jeex na am na fi ñeme na ndax ñu ko dar ñooy ndaanaan ku mel ni tonnerre mi nga xam ne def na fu lu ne takkusaan bu ne am na ko fi. koñaa nag buñ ko xool ci taay bi fit waak jom jee la am du dellu ginnaaw te xam naa ne combat bi dina gaaw te dina am ndam yàlla ko yàlla may dem ci barke Seydina Mohamed. waaw promoteur bi daal maa ngi koy sant di ko gërëm parce que lii yombul parce que sonn na ci ko waa jàpp na ci. acca acca bisimilah. jàpp na jàpp na ci jàpp na ay date yu bëri xam nga mu yaaku quoi te ñun ay xale lañ nekk ñuy pour benn combat xam nga doon nañu waaj saa ñu waajee ñun combat bi dem nañu demee nii mais tey la yala yàlla sottil. daam pexe yàlla ak dogalam xëj na loolu lépp xam nga dogal yàlla suñu borom yàlla mu ngi koy door a tudd mm. ñoo ngi koy ñaanal li mu bëgg ci ak ci lamb ji li lambu amateur damay woo amateur yi fu ñu a nekk mm. maa Ronaldinho buñ ñëwee stade amateur yi nañ kontaan bu dee bëri nañ ko gis bu dee xeex nañ ko gis bu dee tuus mu neex nañ ko gis amateur yëpp laay wo bu kenn des yee ku wàcce yàlla sa place nga ñëw incha allah rabi arène nationale gars yi waa Colobane maa ngi woo ñëpp di woo prési di woo di woo di woo Thierno Ndiaye maa ngi koy wax mu jàpp ci combat bi bu baax mu gën a tiseet yi nag parce que pare nañ ak biey Thierno Ndiaye maa ngi koy woo Bekaay barki Sëñ Fallu aw ma aw ma fayam open presse bi lépp moo ko def moom Elas sar Salif caatu Kolobaan barki àlxoon dañ ma dooleel parce que ma taxaw ñun Kolobaan lañ amul lu Kolobaan fii nañu jàppale parce que ay xale lañ nekk fii bi xam nga war a jàppale ñun couleur fu ñu sama tiseet baa ngi nii Kolobaan laa ci yaa may dégg fu ñu dem autorité yi nañ ñu jàppale autorité ko ñoom si bokku waaw mafia caat bi yëpp maa leen di woo borom moto yi ñu ñëw takk koofan bi ala ala sar barke alxuraanu karim boobu ba léegi mu ci combat di ci sonn békaay di ma dooleel ma di ko ñoo koy woo mu gën ci jàpp bu baax a baax a baax di woo nag di nuyu waa Gambie waat bu baax a baax ñoom alaaji kee baax yaa ngi may dégg maa di nuyu bu baax Pa Mamadi suñu jógee barke alxuraan dafa ko jaral amul bakkanam lañ teg parce que moom man liggéey loo boo ma boo xam ne naa doole mu ne ma demal te ci kàttanu suñu borom li nga daan di ñëw waaw loolu moom moo xam nga cay toog daa jiitu yàlla ci ay mbiram man du ma jiitu yàlla ci ay mbiram te nee bi ci musique nga ko moom loolu la wax waaw yàlla baax na ñun ci lépp la ñu andi waa lam booy dem arme doo waj benn doo fàtte dara lépp nga yóbbaale. lii suñu cosaanu dëkk la dëkk la lii suñu waa dëkk ñoo koy kii. Ah. combat bi dañ koo bëgg moo tax ñu ma lii lii mosut a génn ci combat. ok combat bi lañ ko génne. macha di di di maa ngi woo Amath Dieye son na ci combat bi trop jàpp na ci monsieur le maire monsieur Tine gis nañ sa loxo yow tamit mais war nga gën a yokk nag tamit ah. Abdou Yaamu waaw ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne waaw bëgg nañ ko jàpp ti bu baax Pa Diallo Lamine Dramé as maa ngi koy nuyu ba baax as doomu ndey France si saxo maa leen di nuyu grand parti waa Gambi ñoom Alaaji Keeba ñoom Bas bu Leket ñoom ñëpp maa leen di nuyu leen siyaar di nuyu grand parti Gambia ñoom Ndeye Raku Ousseyn ñoom Umital Awatal xam nga ñoom ñëpp ñoom Seyne bu maa leen nuyu. ñaari baay jili sama tarkindaa bi li ma la wax ci kattan suñu borom yow defal teg ma jàpp Ronaldinho duma ko daan ko. jël drapeau bi emballé ko dugal ko ci valise CP la ko mu ñëw Italie incha allah nga taf ko sa néeg jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ni leen leen ko defalee li fi amoon ci ci ci ci ci nga xamante ni mooy fi amoon fii ci Colobane lépp tegtal nañ leen ko andil leen ko yéen suñu nga xamante yéen escorte ci Wassare Lamb yéen jox dig daje ba beneen yoon ci Wassare Lamb jaa ngeen